Sénégal Sénégal Sénégal Alex Diouf ñoo ko baay déglu ma ak xel te ma dégloo ak Alex Diouf ñoo ko baay mi Alex Diouf ñoo ko baay mi Alex Diouf ñoo ko baay mi Alex Diouf ñoo ko baay mi oh, Agnes na the place Jordan Sie akfa ni job nigga Forever ever Rapi do you buy it? Never never Hari tu mina ti my poor four Dengar semua kasket Ni my filth sama market Jam ni jam manggi yo next level I got do my group of zen Six never level Amul level Khala bun daw I'm fit Di mati ni jit Yang itit by sit Tanya aku wikit Rapi tarba amul hit Nyalan majal git Microphone ni pe oleh metti, metti, mamla a giore Dalla dance to back and the number one MC In a the town is the mash up, it's the man and a the fake At best, at best, at best Don't test this boy Dalla dance to back and the number one MC In a the town is the mash up, it's the man and a the fake At best, at best, at best Don't test Yeah, salam salam forever Turf Connection yeah, Senegal uh, TV, hein? te di bëgg ñëpp di bëgg ñëpp bon juste benn info mu wodd rek que Alexan ñu gën koo xam si Juufa Njoxom Mbaay ok day waaj def combat benn vidéo la seetaan tout juste en si mat mes vidéo te foofu la gete info bi et après man je me suis dit que naa def benn vidéo bu ndaw ok mais bu ma nee Alex rek damay defaat rétro si ak bes waaw parce que benn vidéo bu nga xam ne ñoom ñaar laa koy boole ñoom ñaar laa koy boole tamit mën nañ wax que ni euh, marqué nañ seen ci rap Galsen muy ak bees euh, di Alexa ok mais nag gis nañ que ni ak bees bien que defoon na benn seen baay parce que dafa am ay problème ak justice après noonu ñu teg ko jël après noonu gis nañ bi def na benn combat benn combat ça veut dire que peut-être bi mu nekkee prison mi ngi doon job parce que tamit c'est pas évident ak euh, Rap Galsen fi mu toll nii mu ñëw mu imposé ba nii nii nii nii peut-être mën naa am rek euh, kii bi moo tax euh, Covid bi gars yu bëri tey seen projet affaire du demoon mais ak Alex mi bëgg a ñëw dina metti dina metti dina metti de c'est pas nag xawma ba xam moom li mu laax doon mi ngi doon job wala affaire du demoon mais benn affaire la remarque comme par exemple ñoom période bi ñuy nekk sen carrière bon c'est pas ba xam ñi leen dañoo àndul woon ak ñoo xam ne da woon conseil parce que ñoom ñaar ñëpp ils étaient bien partis le cas d'Alex euh, gis nañ am na benn vidéo euh, bu mu defoon bu xam ni ay DJ Awadi ak yeneen ak yeneen ay stade bi bëri ñu ngi ko entouré woon ku mel ni Akon ak euh, yeneen ak yeneen kon c'est pas la moo leen jàpp de telle sorte que tam évolué wuñ wala teewuñu seen popularité c'est pas bon doo comprendre ah, doo comprendre na la fa demee après damay def vidéo jël ñoom seen quelque kii rek dugalaal ko mais je sais que tamit euh, Alex bëgg na ñëw def benn combat dina métti trop xaw ma nag ba xam ak bés dina ko may dara man loolu laay ragal parce que ñoom ñaar ñoo tolloon génération période bi nii kii ñoom ñoo nekkoon euh, ci game bi bien que tam am na benn vidéo bu nga xam ni ak bés ànd na seeg Fafadi yeneen ak euh, yeneen et puis période bi nii rap ay jeunes lañ instant bi c'est que bon am nañ maturité am nañ maturité ba leen laay ragal est-ce que ak bés dina ko may dara man foofu laay waxee sa ñoom ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñoom bokkoon euh, génération bon loolu rek laa moon lu may wax nag léegi le reste nag ma bàyyi leen yéen ngeen wax seen xalaat comme si rubrique bi ma ko defee à vous de juger comme ni mu leen ko waxee rek juste que euh, mat mes vidéo euh, moom moo may inspiration boobu ma ni man naa def vidéo bi ok tànn ñu nuyoo joxe loxo dédé ni nga saturé na développé ñeme additionné lépp jub ci mbiru xaalis duma taam wala duma xaar foo ma def lu gaaw ci sama wàll du la baal mel ni bàll Gaza eh. kaming ga boy bundaw danta ke bandar nabi dan make you bodo magi gani es ke fake wun gali sanyo lo wah lo mel ni de medis tele munu lo ma yekati pulo urban ak ma men the connection c'est tous les dimanches à partir de 15 k 16 yeah real rap yeah fan lay xewé ci ngay fm 93.5 yeah degul the connection yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah.